jërë ngeen jëf mbokk yi ci seen àndina ak la chaîne des leaders Senbuzz ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane di am mbégte kontaante saa su ne ci di ànd ci ay jotaayu di dalal képp kuy naanaan képp koo xam ne ràññee ngeen taxawaayam bu baax a baax euh, ki ñuy am ak jotaay tey dootuñu ko présenté quand même muy actrice muy acteur culturel boo xam ne dootuñu ko présenté ci réew mi borom Thiès borom New York original Dame Sène borom show yi macha allah borom single yu neex yi moom la ñuy am mbégte tey quand même Dame dalal la ci sa kër Senbuzz TV di la jégalu quand même vraiment ci retard bi mais di am mbégte mbégte bu amul àpp ci di am ak yow jotaay saa su ne euh, Dame waaw maaleykum salaam congaan mhm. maa ngi lay fay di nuyu waa seen bës yëpp di nuyu waa adduna bi yëpp nag mhm. ndax xam naa ne adduna namm nañ ma waaye ni ma namee na ma leen namee moo ko raw mhm. ndax nit boo ko xiifee mu mar la rek boo ko lekkee mu naan la dëgg la te ñu ngi santaal yàlla bu baax a baax di jël Seydina Mouhamed di sant sunu ñaari waajur di ñaanal sama baay ba ca barsak suñu boroom yërëm ko jégal ko xaare ko àjjana amiin yaa rabbi sama yaay mi fi des nag suñu borom bàyyi ko fi ci kanamu njaboot gi ndax wax dëgg yàlla amal nañ njariñ ñu ko ñaanal mu gudd fan lool di sant waa adduna bi yëpp sama sëriñ ba sëriñ Saliou Touré mi nga xam ne mooy seen sama yaakaar àdduna ak alaxira yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem ba maanaam ki nga xam ne moom la fi bàyyi mu njabootam géegi yàlla teg ci loxo seen cheikh nag ñu koy ñaanal seen cheikh Touré taaw sëriñ Saliou Touré ñu koy ñaanal yéen bi woyof ci kawam woyof tooy ndax balaa nga xam oyof a neex mhm. naaw jot te olof Njaay nee na boo jégagul barrière boo koy tëb da ngay balaa nga dem fourrière waaye ñun waa Sénégal jégg nañuy frontière kon nag yàlla na ñëpp am jàmm très bien di kontaan ci yéen bu baax a baax a baax merci beaucoup Dame alors pour commencer waxtaan bi dafa am benn question boo xam ni certainement dafa concerner lu di musique mais Dame dama la bëgg laaj ndax li xew léegi révolution nga ko tuddee wala à la place dañ daan gis taasukat yi ak yenn artistes yu mel ni daam seen ci milieu public bi mais booy xool léegi dafa mel ni euh, entre guillemets bongo maan yi ñoo gën a xew ñoom ñooy def ay diyu ak yenn artistes yi que ça soit ci mbalax que ça ci li nga xamee aussi mooy rap révolution boobu lan nga jàpp ni moo ko waral. am nga jamono buy dox nga ànd ak moom tey changé doxin. te at mu jot lay xew ndax lu ne jaar na fi tey nag li la ciy mooy nga gëm yàlla. booy xool tey euh, musique moo yàqu ci boppam du mën nag kenn ko yàqu mais musique dafa yàqu ndax mm. ku ci ne am nga ci part de responsabilité boo xool tey fi musique toll ak fa mu nekkoon démb nga xam ne changé na ndax léegi dañuy fekk ñi mën ne mënuñoo fekk ñi mënul ne dañoo mën loolu ñëpp a ko jooy mm-hmm. da ngay xool tey congaan musique boo ko daan déglu sa xool dafay neex mais léegi da ngay déglu musique di mer ndax la nga cay dégg moo la dul neex tey bu ñu demee ba tey maanaam nga gis album am gisatoo ko léegi ay single rek ngay gis ñu koy génne yaa ngi dégg featuring yi ngay dégg yëpp ay featuring loo xam ne la mhm. maanaam am na ñoo xam day ñàkk pexe tey ñu def ak kii featuring new ma tey kii buy def ak kii la muy def baaxul dara mais ñàkk pexe moo ciy boole leneen ciy boole ci ñàkk pexe mooy aar mhm. bi dañ toll foo xam fi mu ne nii lu neex waay def la lu neex waay wax fu neex waay dugg aar bi dama koy waxee keroog ne léegi comme mango baxal ta buntu kër ga waroon mu teg nañ table mango baxal jàng fa nga boole ko kon ko war a boole rek. Mhm. xam fa nga dem ko naan ak a neex. Mhm. mag ñaa ngi jooy. mag ñaa ngi jooy aar bi léegi nii mu mel nii ah congaan waxoon naa ko dinaa ko waxaat de ci gën a yàqula la jëm tey jii yaa ngi yokk ay wàllu diwo yi am. Mhm. ñu ngi nice featuring yi ngi nice ku ci nekk ka nga sentir moom ngay woo dafa moom featuring mi ngi nice li ma ci bëgg rek mooy. ngala nañ koy teg ci yoon parce que tamit am na ñuy ñëw ñoo xam ni tey ci musique lañ yaakaar te bu ñu gisul maanaam tey lu leen doy. waa lu ñu xam ñoom it mën nañu ñëw affaire gën a jaxasoo te fiñ toll nii buñ lijjantiwul affaire yi day gën a jaxasoo. mais mais est-ce changement bi yéen amu leen ci part de responsabilité par exemple yéen vous n'êtes plus présent quand même sur la scène musicale Dame Sène fii ak képp koo xam ne taasukat la bu mag la bu ñu xamoon ci réew mi est-ce que du entre guillemets looloo tax xëy na bongo maan yi ñoo gën a xew léegi ci ci lu bare bari ci ci sur la scène musicale. Dame Sène nekkatu fi dafay gëj rek waaye mi ngi fi dafay gëj. Mhm. li tax mi fi gëj nag moom xam na ndax nii aar bi jaxasoo nii bilaay ko fi dul di nga xëy bés bëgg a lijjanti wala nga bëgg a lijjanti dépense mu tëla ticc ndax aar bi léegi. aaru aaru dépense la booy xool am na ñoo xam tey jii xooluñu carrière non non ñu am dépense bu ñu seen kër seen normal am na ñoo xam ne <clears throat> plan de carrière amuñu ko. Mhm. am ñoo xam ne amuñu talent amuñu dara lu ñu am mooy ngénte am feeñ ñu dem toj ko am fa li seen weccet yóbbu seen kër ndax dañu am njaboot. Mhm. dañuy am ay doom wala jox ñu lekk wala jox la ñu naan comme amuñu plan de carrière nag mënuñoo xaar lu gudd wala lu yàgg am ñoo xam ne patience amuñu ko. nañ lijjanti léegi wéccet bu ñu yóbbu seen kër tey jii benn daam seen mu leer na ne yow yàlla dimbali na la ubbil la ay bunt yoo mën a jaar pour percer dem sa yoon looy taxaw benn place di xaar ay nit ñu ñëw du ma ko def ndax yàgg nga fee ay artistes yoo xam dañ koy toj ñëpp di leen bëgge ñu am lu ne ci aar wëlbati ko tey jii ñu ngi leen di keteel ci seen feebar di leen laajal pour seen ay loyer pour ñu fay ko wala dépense kër artiste bu mag ñëw di la ko laaj ba xam gars yi yoroo foofu 5000 wala yow 10 000 ndax kër xale yaa nga fa xam nga yooyu laay bañ mais loolu génération bu yàgg ba la bien sûr du xëy na booy léegi booy yi nga xam ne léegi daa mu ngi États-Unis fa lay gën di bare du ñàkk aussi souvent muy am activité yu mu fay def wala waaw xam nga moom moo moom laa la expliqué nii allez-y man yàlla dimbali na ma may na ma xel xel mi ma may mooy yow lii ngay def mën ngaa xëy bés léegi Sénégal dañoo gaaw ci xeewi na te ñi am talent. ñu aay lañ naan xeewi nañu. ñoo xam tey lu ne seen yaram yëpp aar la ñu xeewi la léegi loolu lu koy indi mooy ne fi di leen xaar bu leen xaar man du ma xaar kenn dama am loo xam dépassé na mu ngi sama ginnaaw am ñu fa toll non du ma leen xaar mu di tollu ñoom niveau damay dem sama yoon parce que yàlla dimbalee na ma loolu du man yàlla la kon nag teel a lijjanti sama bopp bu dul man sax sama njaboot ëllëg war naa mën a am eh, ñaata étage nga romb avant nga egg si fii. étage yooyu ay nit moom ay jinne moom leen ay malaaka moom leen non ñooñ lu ñu def ba lijjanti seen bopp bu mën a tabax loolu daam seen war na ko mën a def lijjanti boppam tabax loolu ñaanuma yàlla naan damay dem ba faatu bàyyi fi samay doom ñi am ay problème parce que am na nit ñoo xam ne maanaam tey au lieu ñu conseiller mais dañ lay faani rek booy kër gi li nga joué démb rayal la teen taj toj nga fi li nga sañ si démb jëmul kër. kon da nga jàpp ni euh, yem ci musique jamono bi wóorutul daal surtout ci réew mi mel ni Sénégal loolu nga bëgg a wax. Sénégal moom naa la xamal benn affaire. waaw ku basé wu ci Sénégal gii. Hmm. di nga barke Mouhamed yor di dox ñu naan maam daam wala maam congaan te màgget fi dafay gaaw ndax benn lekk gi baaxul. condition yi baaxul. c'est clair congaan gis nga dëkk bi. poussière bi fi ne travaux yi climat baa ngi nii ba ba mu tàngee ba tey seddul nañu waxante dëgg longue manche bi ma sol nii rek nooy na waaye maa ngi dee. Hmm. te émission bi yàggul demaguñ fenn ma ñàkk tooy xeeb congaan lii mbaa jàmm la kon na ko am possibilité yàlla dimbal la nga mën a génn dem li jënd sa bopp ah. congaan na nga ko def ngala d'accord dañoo gaaw ci janaxoo mbaay nga dee rek ñu naan janaxoo mbaay yow mi nekk ci biir suuf boo demee neel daam Sénégal nam nañ ko dañuy sóob artistes yi ñoo foo benn ñaaral ba mooy da ngay feebar léegi congaan lamb see poos dara du ci nekk fekk yoroon nga ko mënoon li jënd sa bopp wala nga mënoon a li sa ci biti defoo ko congaan ne fi di xaar ay booy yaa fi toj ak booy yi du ko def xëccooguwuma kenn lu waaye am nag jëlal yàlla dimbali na ma mi ngi may taxaw di ma jàppale maa ngi sant kon nag congaan man dara waruma dul sant yàlla saa su ne d'accord original Dame Sène ban lecture nga am tey li xew tey léegi entre guillemets ay acteurs culturels la quand même soit alpha lañ leen di tuddee mooy bongomaan yi mais ñu ci bari si ñoom dafa am jugement bi nit ñi di def si ñoom par exemple bu njëkk yéen taasukat yi am na valeur boo xam ne gardé woon nga ko mais la plupart ci ñoom léegi dañ leen di tooñ naan ay borom ñaari tur yi la ñu ñeneen ñi naan dañoo jigéen bëri ci ah bon bëri na ci dara man su ma ñëwee su ma jógee États-Unis wala ma dem tukki ba ñëw da mm. na tekk naan dof ba ñëw na yow xam nga booy lu ñu rakkaaje woon ba ma nekkee fële mhm. bokkul ak ba ma ñëwee man maa leen gën a sadik fop man amul ay làkk-làkkee ay borom ñaari tur yeeg yooyu booy ñoo raw ñaari tin maa fa yàpp booyee leen raw domadaa moo booyee leen raw puuj paaj booyee leen raw man dama man man du ma concevoir góor jël say tuñ xoos ko yaa ngi dégg du koliroog def seen affaire pastel yi booy yi dañoo yambaree jongaan booy yi damaa ragal sax léeg-léeg leen jiñ la ay ëmb sax du ñoom ndax booy est-ce que ay góor lañu booy yi mënuñu dara de booy ku ci gis sa tuba yi sa waay peewu sew ngay sol. dara du dara du dara du junki mu leen booy dañoo reesle ci wax ji ñu baat ma rafetal ko booy yi bëri na ci ay yambar laa wax waxuma la bongo maa ni kese artistes yi way ak fecckat yeeg taasukat yi ngay wax ak te taasu sax nee naa leen ba tàyyi nee leen bàyyi leen koog jigéen ñi góor dee kebatu ndax taasu ak yamu ànd ak te booy ñoo yambar léegi dañuy taasu di raga joog di biiñ di def seen affaire yambar yooyu balaa maa dañu naan ay boo deful yooyu kenn du la sant man de bu fekkee yooyu tax ñuy sant nit kenn du ma sant waxuma la programme mm-hmm. kenn du ma sant sax euh, tour de famille d'accord ndax dafay affaire yi nooy yi ñu def nii yambar rek te bëngu di biiñ ak di lëmbal mm-hmm. te góor ñi dàq lëmbal jigéen ñi surtout góor taxaw ak sa sa yére di lëmbal loo xam ne di loxol sa sa sa benn kii bi mm-hmm. di ko lox loxal waaye mooy congaan ban réew lañ ne. te même bu dee artiste nga yenn yi waroo ko véhiculer. congaan dafa am yoo xam dafa ñaaw yow ñuy xool ci yow. Ah. ak ñi roy ci yow bari. ay booy di dëkk délégation euh, ar aar bi dëkk ñooñu war a ñëw roy lu baax. Hmm. yow nga ñëw indi leen loo xam dañ leen ñi tey ku ku ci jaar moo tax barki Demba Ndiaye dama doon tudd am ku ni ma ban doom nga am man ko doom bu jigéen ma ne ah jigéen man ko jigéen baax na de fi mu ne nii jamono ñu toll nii. Hmm. am jigéen sax a gën. ndax boo amee góor ñu corrompe ko jox ko ay peew jox ko ay bot tuuti xaalis yóbbu ko ci borom ñaari mu doon mu doon maafe yàpp mm. mbaa doma daaw mbaa puuj paañ mbaa sulu ko mbala léegi nag congaan ñun fu ñu jëm d'accord yal nañ yàlla musal rek congaan te booy yi yéen laay wax mm-hmm. dëgëral leen affaire te ngeen bàyyi seen raga ju yeeg seen affaire yu yambar yi ngeen di def ñàkk ngeen fayda ñàkk ngeen jom nit da ngay am fulla góor da ngay nekk góor bu fekkee yàlla def na la góor mm-hmm. ngay takk tubay mais doo nekk góor nga ceene ci boy yi xoolal jël ci soxla yi mais gën majeure partie bi kenn amu ci jabar. d'accord majeure partie bi kenn amu ci jabar te doom yi leen di jiin sax léeg-léeg leen ko jiin rek mais juruñu leen ndax dañuy booy dañuy judd xawoon dëgg ñoom rek fekk keneen na ko jur ñu leen koy jiin ngeen def ay seer lañ ñii di takk jabar di mbubboo ñii di doxaan doxaanoo di boo yooyu lañu war a bàyyi. da nekk ay góor yàlla. Ah. na dëgër ay d' accord très bien mesdames lenn loo xam ne en une minute c' est vrai que maa ngi xëy na amoo jot bu bëree bëri euh, lan nga jàpp tey moo waral boo seetlu même ci xew yi léegi c' est vrai ay tëggkat dafay am dafa bëri mais dafa mel ni daal bongo lañ nit ñi gën a bëgg léegi ci ñi koy def la wala tamit dafa nekk instrument boo xam ne da nga jàpp ni jamono ji buñ fi buñ ci jugul mën na jëlee sabar euh, ci réew mi wala gisoo loolu. non mënu jëlee sabar ci réew mi ndax am na ñoo xam tey sabar lañ sentir. Mm-hmm. mënu jëlee sabar ci réew mi am na ñoo xam sabar lañ sentir am ñoo xam bongo lañ sentir xam booy xool bongo dafa gën a woyof mhm. ndax tey boo woyee bongo man ñaar léeg lay gàddu ak seen ñaar tama ñëw te ba pare tamit instrument bu neex la mhm. te buy neexal xew la boo yëg ko bëgg a yàq rek mais lu neex la ndax bongo fu mu dem sabar nga ci ginnaaw wala tamaa nga ci ginnaawam bongo kese day day day xaw a wéet mais sabar da koy dar tama da koy dar ñoom kay nañu valoriser affaire bi. Mhm. may ko fulla comme ni ko ay ñoom vie ñaari defee. Mhm. am na ñoo xam tey bu ñu ni tëgg bongo da ngay kontaan ci ñoom xam nga ay ñu Ousseyn Mbaye ñoo ñoo njëkk a bongo booy. Mhm. bongo tey la yàqu rek. ndax booy yi beesee fi ñëw yow benn yéen bongo man dañ woon tëj kaso benn bu njëkk ngénte boo fa demee laax yi leget lañ koy lekkee. yéen jël ngeen leget yi def ci ay bongo ñu leen dara ngeen bëgg fee indi affaire yambar. di ko ci boole duñ ko nangu doon ñu xañ suñuy legatu laax ba pare yambare ko ne dëgër këcc d'accord lan la lu xew alors mesdames en tant que porteur de voix naka nga jàngatee tey phénomène social bi faral di am tey par exemple lii gën a def polémique ci réseaux sociaux yi wala ci société bi de façon générale ay vie privée jàmbur la récemment yaa ngi dégg ñu naan Aziz Ndiaye takk na ñaareel mu jur polémique ñu xëy polémique bu mag amaat tey ñu naan tas naag tasul bu ñu demee ba nga xam ni lu ñuy gën a consommé mooy ay question vie privée jàmbur noo ko jàngatee man nag vie privée du ma ci dugg xamul tax. Mhm. maanaam mosuma am numéro privé sax man kon vie privée dama ci génn. tey Aziz Ndiaye takk naam takku Sénégal la xew yii rek. c'est clair Sénégal rek la lu tax Sénégal tollu fii ba Sénégal ñoo tardé te duñu avancé. déglu ma la sànq rek ba may dem fee di def benn émission benn camion gaar ci digg yoon bi kenn mënul dem kenn mënul dëkk Sénégal la tey demal dëkk tubaab yi nit ñi discipliné nañu discipliné nañu nit ñi réglé nañu dal nañu mais Sénégal ku la gën a ëppal nga ne kii moo tax léegi xam lu may def marché laay xëy dem jënd ëppal jënd rakkaaju jënd soof bon soxor iñaan ñàkk kersa jënd réew gu mat sëkk def sam poos yi lu waaye indi rek ma génne la rocc la benn pantalon ñaata poos la yam bu ndaw bi trois quatre cinq poos fu nga def fa benn réew soxor bu ndaw bi soof fii ëppal fii ñàkk kersa lu waaye indi rek nga wàcc benn ko cër d'accord mu jeex tàkk parce que Sénégal googu lañ toll. vie privée jàmbur kii takk na jabar rek takkul jabar lu si sa yoon. ñaareel ba tas naag ñetteel ba tas na wala aw ba dem na lu si sa yoon. Mm. yow doo fexee takk te ñu koy wax ñëpp amuñu kenn. génn wàll gépp amuñu lenn wala seen sëy yaa ngay yëngu-yëngu goo xam ëllëg ñu rek la ko. Mm-hmm. mais duñ ko def dañuy fekk benn sëy yu daam seen fee di ko lijjanti fekk yow yaa nga bàyyi sa problème boo xam ne xamoon nu mu day. aussi tamit couple yi maanaam tey booy takkati soxna ngala na nañu wàññi yenn fësal yi lii moo ko indi parce que làmmiñ baaxul làmmiñ baaxul boo takkee jabar ñu wane ko benn yoon ñaari yoon doy mais loo def ñu wane sa jabar loo def ñu wane Aziz tamit foofu def na erreur tamit moom ah bon si ci xale bi daal d'après maanaam maanaam tey mhm. Aziz tey du euh, n'importe senegal ci Sénégal Aziz Ndiaye tey àdduna xam nañ kuy Aziz Ndiaye absolument def ko lu baax la nit ku baax la ku am yar la ku am teggin la ñu gis ñu def ci maanaam gàmmu yeeg màggal yeeg social lu mu ci doxee mm. am na yoo xam ne Aziz Ndiaye moomu ko ñi affiché Aziz Ndiaye partout fu ne Aziz Ndiaye ci suuf fleur Aziz Ndiaye ca weñ yee Aziz Ndiaye ca gurtu ga Aziz Ndiaye ca toit na oh, daw am na yoo xam ne dëgg la maanaam moo moom boppam moo mm-hmm. moom xaalisam xam nga moo moom ay këram moom ay otoom suñu yoon nekku ci mm-hmm. mais li ñu koy wax mooy na xaw a làqatu tuuti dafay baax ci moom. ndax moom kilifa la ci réew mi. si quelque soit Aziz Ndiaye du du du du du bojo bojo du du cakkir mbécit. Uh-huh. Aziz Ndiaye du cakkir mbécit di Aziz yàbbi li nga sex d'accord mesdames ñiy éveillé polémique boobu maanaam ñiy faral dem ci TikTok bi def live rek wax ko daam seen takk na jabar daam seen tooñ na doomu jaamur extra extra ñooñu tey ban considération nga am si ñoom vraiment. damaa xamul sax xam nga ñoom yi liy liggéey seen liggéey dafa yomb. Mm-hmm. parce que yow xaaroo lu dul nit def loo xam ne war ngaa mën a tëw rek tasaare wasaare ay ay affaire am pour àdduna bu yëkku mm. mais man mosuma gis boobu liggéey est-ce que loolu li nga ci nekk sax dina baax tey jii kii tas na nga gaawantu génn waaw diw tas na nangam sangam eh, wala kii feebar na nga génn mm. diw feebar na nangam sangam eh, mais dafa am yoo xam congaan mën na ñàkk ci àdduna mm. nañ waxante dëgg quoi parce que tamit nit mënta feebar di nëbb feebaram yow nga fësal feebaram te sant la ko nit mënta am soxna tas ak moom saa waay nga dem di ko wili pande ci mbedd mi wala ci réseaux sociaux yi. la dafa mm. ñaaw sa yoon ko ci moom moom la concerné tasam moom la concerné buy takk tàggu la buy tas saa waay lu sa yoon. d'accord alors mesdames da nga wax lu am solo léegi nee nga euh, dafa mel ni souvent li li li tubaab yi di faral di wax c'est-à-dire. lu war a nekk vie privée bu ñu demee ba génnee ko ci penc mi nekkatul vie privée kon jàpp nga ni mariage yi indi polémique yëpp dafay fekk borom am ci responsabilité pour fay si parce que tey Aziz Ndiaye mhm. man li ma wax ci moom mooy mënoon na jël soxna sax kenn yëg ko. comme ni ñu waxee naan Sadio def na ko wala defu ko. Sadio mën na nekk xam nga xam nga lu indi après. werante dëgg la am du dëgg. xam nga congaan nit jiñ dara nit am ñu ne man de su ma tegu sama bët du ma léegi tey Aziz Ndiaye bu demoon tey yóbbu benn kii yam ñu may ko ndànk ci jàkk après ñu yëg ko ab ah, bu ñu ko yëgee nag après ñu dañ ko war a yëg yëg nañ ko mu ngi tey rek ki di fa diine bu làkku bala laa ñu ko yëgal nit ñi denc ba pare da ngay xool foofu rek balaa ñu ko yëgal kenn denc ba pare bu ñu xëyee nit ñi naan diw faat kañ la làkk ñu ne démb denc nañ ko ba pare ñi ne ñii di xaar do fekk denc nañ kañ kañ xaar ñoom denc nañ ko ba yàgg day am. Mhm. kon nag dama bëgg yenn célébrité yi wala yenn ñi nga xam ne maanaam tey ji ay autorité lañ ci réew mi ñu xam ne ay autorité la ñu ay exemple leer la ñu war a doon xam nga mais di affiché wu ci yoo xam saa waay da ngay ree ba tasit. Mhm. àdduna dafay jeex. d'accord. te am na yoo xam ne làmmiñ man làmmiñ dama ko ragal ba. congaan ni ma ragalee làmmiñ moo tax bu léeg nga ni ma sax lan mooy projet yi man la aw ma projet lan ngay waaj man la dara. kii man la bientôt man bu ay bientôt amee ba léegi ay aussitôt kenn sonaltuma ci dara. congaan léegi man kenn du ma indi problème parce que tamit adduna bi boo làkk du la teel a dee. c'est loolu moo fi nekk. parce que tey loo mën a am ci adduna am na ku la ëppale te génnul feeñul néewul nii. piisul. kebatawul ne pat ak moom kon nag sa waay euh. am na yu bëri yoo xam daw ko moo gën di ko song parce que jamono neexul mhm. te dañ tool jamono joo xam nit ñi dañu sonn tey jii boo takk soxna génne benn cent millions wala benn cinq cent millions yow la concerné mais bu mu fës ndax am na ñoo xam ne tey bu ñu ko gisee mën nañ cee jaare xaru ndax amuñu dépense kon dan naan yàlla ñoom da leen a jëppi fekk yàlla jëppiwu leen am na ñoo xam seen ngëm-ngëm agul ci mhm. kii war naa mën a am lii war naa mën a def lii d'accord waaw doolaa ngi nii ah. <laughs> Sénégal a ngi nii damay dellu. fii lu ma fiy def. alors kii nii tëb émission muy riiral nii. très bien alors daam am na ñuy am jugement boo xam ne dañu naan comme États-Unis célébrité yi foofu dañuy def ay mbir yoo xam ni souvent day jur polémique mais pourquoi États-Unis mu valable fa par exemple ñu ne jay def na dara wala Rihanna wala demet te Sénégal bu polémique amee ñu naan société bi maandu wuñu dañoo war a noppi dañoo dem ak lan leeral ci loolu. xam nga ñoom jay ñun bokkuñu. ndax ñooñu xëy na amaan lool mën na leen a jik ndax tubaab xamul yàllaa ko dogal ñun bokkuñu ak ñoom ñun bu ñu xool ci ñooñu ñun xam lu ñu war mooy li suñu diineem lu ñu may ñu defee noonu ñun loolu looloo ñu looloo ñu war ak li ñu suñu culture may waaw mais ñu toppandoo ay ñoom jéesi man damaa xam ku jéesi sax yaa ma ko fii de mhm. man sama yoon nekk ñoon li ji tuuma ñooñu gis nga Amérique bopp sa bopp la mën ngaa simee ko fii ba set kenn du la faale Sénégal boobu fi simmeekoo léegi xale yi xewul xeer dof bee dof bee te fekk dofoo da ngaa simmeekoo pour sangu ji sa sorte réer la nga jaar nii lagar lagar ñu ne wuy dof na yaa ngi dégg mhm. léegi beneen affaire mooy tey ñun li ñu yàlla may may ko kenn ñu Sénégal mais xoolal Sénégal xoolal dëkk yi am guerre xoolal dëkk yi am ay tremblement de terre ay dëkk lañu comme senegal bi mais fii yàlla dafay def loo xam ne ñun yàlla jomb nañoo sax ñun toroxal ñun yow congaan kon ñun waroo lan moo ñu war góorgóorlu mag ñu baax ñi ñu am kilifa yu baax yi ñu am moo tax yooyu mënu fi am de mais ñaaw te fii la ëppee de Sénégal lu gën a ñaaw ci àdduna boo ko doon seet boo ñëwee Sénégal fekk ko fi mais yàlla di suturaat nit ñi mm-hmm. yàlla diñ suturaat sénégalais yi sénégalais yi nag xamuñu loolu bàyyi li moom bëgg a fekk leneen loo xam ne moomuñu ko ñu bëgg caa ëppal roy ba dàq sénégalais yi ko mën Sénégal sàcc sax léegi moo ko dàq ci àdduna sàcc deux doigts yi mm-hmm. sénégalais yi ko dàq ci àdduna te bu njëkk da ngay xool tubaab yi dàqoon sàcc ci àdduna dañuy sàcc ba nga daw film yi ngay seetaan rek ne noo ñu di ay nit mais léegi sénégalais ñoo dàq jee film. d'accord muy film bu ne nekk. Mm. ba ca film yooyu noonu. def yëfu saay-saay. Mm. léegi sénégalais yoo ko dàq lépp. dañoo roy ba dàq léegi ñun xaw ma lañ moon dal. bàyyi bàyyi sunu mënin mu fekk yi fi jàmbur ni ko càppi jël. mais ñun lan moo ñu dal tamit. très lan moo xew. d' accord très bien original Dame Sène moom la seen bés di am ak jotaay mënu ma jeexal aussi te waxuma sa retour bi nga xam ne dafa ànd ak benn. single musical boo génnee bu ma juumul aussi yaa ngi ci préparation clip bi lu waral euh, son bi nga xam ne ni déjà def nga ko texte bi lan nga ñu si mën a détaillé lay tudd. waaw xam nga single boobu mi ngi tudd kuy dugg. kuy dugg ça veut quoi. mais congaan. Mhm. boo génnee sa kër boo wàññee ko fooy duggaat sa kër boo jugee sa kër dem sa bureau fooy dugg sa bureau. Mhm. saa yoo génnee am nga feneen fooy dugg ku dee sax dugg ci bàmmeel moo tax ma ne kuy dugg demoon naa dugg si naa waat. mooy mooy koy dugg de ci laay wax naan ku am ku mel ni daam maa ngi ko dippee badu nag ku am ku mel ni badu di ko sàggane xale bu ndaw ni ko càppet su ma nee xale bu ndaw mooy am réew nga mel nga am ku mel ni daam si en mhm. benn talent nekk ci moom muy ndaanaan boo xam ne yàlla def li muy def ci moom nga koy sàggane ba mu dem beneen dëkk waa dëkk boobu jël ko man léegi je suis américain de américain adopté nañ ma jël ma boole ma seen biir mhm. Sénégal kat sa waay xamuñu ku mën dañoo soxor ba boo mënee sa ñu fexe ba doo mën mënati dañ la yóbbu sëriñ yàq sa xel mi doo xalaatati lu baax doo waxati lu baax booy fecc fecc ba mu yàgg sa omba ne oh mhm. ngay wax mu yàgg sa baat ba can yooyu sénégalais yooyu lañuy def dem ci sëriñ tam maa mën yi fii mhm. yàq lañ gën a mën ko defar yaa ngi dégg mhm. kon nag ci tongaan fi mu toll nii single boobu génn na mu ngi tudd kuy dugg saa yoo génnee am nga feneen fooy dugg absolument boo génnee léegi war a dem fu sori di ko dugg taxi kon yaa ngi dugg kon nag kuy dugg ba ngi noonu di ñëw ne nag gaañi nañ ko dem seetaan ci YouTube bi dugg na sama paas dugg na mi ngi fépp moo dàq ci morceau yi mu mus a génne kuy dugg ngi noonu yéen a ngi noonu dugg leen xool très bien congaan mon très original Dame Sène ma doon am mbégte vraiment grand si si si jotaay bi mhm. di la gërëmaat mbégte lay am saa su ne ci di am ak yow jotaay ndax yow Baye Fall nga mon très cher merci beaucoup congaan maa gën a kontaan yow yàlla sa jàmm yàgg ndax ndaanaan nga sa question dina réglé yow doo doo dépassé nit ki. doo ko song. Mm. maanaam journaliste yëpp laay ñaanal. yàlla defal leen jàmm ak tawfeex. amiin seen liggéey bi ngeen di liggéey parce que coono kese la. dëgg la yéen kenn amul seen fay. Mm-hmm. fu ñu nekk ngeen fekk ñu fa wane ñu. feeñal ñu fësal ñu rocc ñu ci ay ruq di ñu génne di ñu teg ci ay pénc ñëpp di ñu mën a seetaan. kon nag yéen yàlla seen jàmm yàlla muy seen buzz ak yeneen site yeeg yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mais yow moom mention spéciale ndax nit nga te nit ku baax nga te li nga def nga ko dama la koy faral ni la yow congaan man dama lay seetaan mais damay kontaan wax naa ko tamit sa confrère bi ñuy wax El Hadj El Hadj waaw El Hadj damay xam nga neex ay ñoom jaaj ñaar ku juum ay fifi ta xam fifi gars yi nga maanaam mooy loolu xaw ma ñeneen ñi nag waaye ñoom ñëpp su ma leen xamoon ah. lim seen tuuri parce que ay ndaanaan ngeen merci beaucoup kontaan naa sama xol sedd na émission bi gaaw na nag waaye neex na c'est clair sa jot moo bariwul daam billahi <laughs> original daam seetlu billahi billahi billahi original daam jël kotu horaire foo ko fekk day tardé c'est clair c'est moom seen buzz danaa la xamal de succès boo ko yenoo kenn du am ci yow accès nee naa la boo xone tey da ngay jéem a honnête ñu toggal la toog ci sàkket boo ko lekkee lépp net ñu woo net mu yenu lekket yóbbu maquette jox ko honnête honnête invité amet fête ñoom nanet jox ko crevette brochette ak vive les américains très beneen jotaay ak beneen invité sur amaanillah merci beaucoup